tey nag dañ fi ñëwoon tey def benn marché pour manifester suñu naqar manifester li nga xamante ne nii wax dëgg yàlla moo ñu métti muy lan muy li nga xamante ne xew na keroog altine si ngoon fële sa Allemagne muy suñu frère mu tudd Mohamed Dramé ñu dóor ko ay bal foofu noonu ay bal sauvement yoo xamante ne rey nañ ko fa si loo xamante ne ni vraiment teguñu ko fenn mu doon loo xamante ni métti nañu lool ñun population Ndiaffate moo taxoon tey ñu wone li nga xamante ni mom la nga xamante def nañ ko fa mu loo xamante ne ñu neexul la pour wone li nga xamante ni wax deug fa neex yàlla neexul ñu ndax Mouhamed Dramé wax deug fa neex yàlla ku ko xam xam xam ko ci diine l'islam ku xam xam na julit la Mouhamed ba muy xale la ko bayam jël yebugo ko mu dem jàng ji alcorane bam jange alcorane ba wàcc la dogo ñuat fi ni ni nek fi ak ñun ci jàmm ak salam wax deug yàlla muy xale bu neexa nekkal xale bu oyof xale bu xamante amul ben problème mu don ko xamante ku neexul nekkal nekkal la ba kërok nga xamante ni mu ngi fi jógee di dem Espagne keroog ba mu yeggee daf ñëw aussi si woon na mu doon suñu loo xamante ne mbégte woon si ñun muy mbégte aussi si famille bi et tey wax dëgg fan nax boobu nag tey gars yi transformé ko en désespoir tas suñu yaakaar wax dëgg fan nax yàlla si loo xamante ne teguñu ko fenn considéré ko criminel te yàlla ne ni xale bi musuñ ko xamee xeex musuñ ko xamee affaire criminel ku yaru la woon ku jullite woon tey jii li nga xamante ne xew na fa nag si Allemagne mu doon loo xamante ne ni métti nañu trop ba si kanam yàlla moo waraloon tey ñu teew fii ñun ñii nga gis ñi pour manifester ko pour wane ne wan aussi ñi interpeller suñu gouvernement à savoir le gouvernement du Sénégal gis nañ jéego yi nga xamante ne mu ngi ko siy def mais ñu koy gën a axaat encore pour que mu gën a gaaw si mbir mi mu gën a leeralaat encore mbir mi mu gën a leeral mbir mi justice mun see am parce que wax dëgg fa neex yàlla xale boo xamante ne ni 16 la am nga tiim ko ak bali fetel bu noon benn sax ñu mun a wax waaye benn ñaar ñett ba juróom benn bali fetel nga dóor ko xale bu ndaw vraiment loolu dafa rafetul dafa ñaaw trop loolu nga xamante ne dañ koy ñaawlu moo waraloon tey ñu teew fi tey di interpeller nag guvernement di Sénégal ni mu si mën a dimbalee si nu mu gën a gaawee pour que justice ñu mun koo def ak aussi tamit suñu koor tamit ñu mun se jot loolu aussi doon la nga xamante ne ni lu ñu soxla la lu ñu yittewoo la moo waraloon tey ñu ñëw fi tey pour mën a manifester loolu won suñu guvernement ne ko soxla nañ suñu koor ginnaw yalla def na la muy def ba paré ñun soxla nañ suñu koor ñu mun ko ci sa anam yañ ko wara a dencee ñaanal ko nañ ko wara ñaanalé ñun ñu ay parents am loolu lañ soxla wax dëgg fa neex yalla loolu moo ngi taxawoon jóg tey ñu ñëw tay pour manifester loolu waxat encore une fois que né gouverneur ki police allemand lu ñu def wax dëgg fa neex yalla métti na trop bu doon sax dañ ko bu doon sax né dañ ko considérer comme criminel criminel mënon nañ ko éliminer sax après def ay suivre ay enquête wax dëgg fa neex yalla mais jël ko téye ko sauvement wax dëgg fa neex yalla daf ñoo métti parce que kanam yalla nous marchons d'abord pour dénoncer cela mais nous marchons aussi pour euh, exhorter au gouvernement du Sénégal d'éclairer euh, la lanterne sur ce meurtre qui est purement raciste. Parce que si ce jeune était blanc, il n'allait pas tirer. Il n'allait pas l'aborder ainsi. C'est parce qu'ils sont purement racistes que cela soit ainsi. Maintenant, nous réclamons justice pour notre défunt frère. Euh, nous voulons que l'État s'imprègne davantage nous savons qu'il y a des tractations qui sont en train d'être faites, mais nous voulons qu'ils s'en prennent davantage, qu'ils s'engagent davantage euh, et euh, que justice soit faite et que celui qui a causé ce tort soit puni par la loi.